mbokk jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu kuréelu yaatal mbindum alxuraan bu C3S biy taxawu jongante bi ñuy amal jëm ci mbindum alxuraan moo yëgal ñépp rawatina ndongo daara yi ne gannaaw diir bu yàgg bi ñu ajandi woon bépp activité jëm ci amal boobule concours di édition 2020 2021 mu ngi xamal candidat yi jotoon na déposé ne dooraat nañu liggéey bi c 3 mi ngi xamle ne ngir wéyal liggéey boobule liste candidat yi jotoon na déposé daaw rek la jël njëkk bi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre 2021 ngir jël ci ñoom ñeent fukk yi war a jàll ci xaaj bu njëkk bi ku ci bëgg yeneen i leeral mën ngaa woote ci 76 751 43 42 wala 70 736 36 36 bi ni'mati rabbika bi majnun ñëw xel kom ca suba ba léegi ñu ngi fi daari juñ jógee dem jeneen lan mooy sunu yitte yóbbu ay ñam yóbbu yu sedd yóbbu ko loolu lépp ci liggéey bi la biig ba léegi ñu ngi togg ñuy mbooloo moo xam ne seen ñëpp ci bokk ko bokk ku dëkk Touba Touba nag ñëpp fa dëkk kuy taalib sëñ Touba daal ñu ngi lay woo ci liggéey boobu at mu jor ñu def ko señor jërëjëf ku yokkul wàññeeku waaye ku ñëw ci yëf yi xam ne yokk nañu soxna Faati nag moom Serigne Sidi mu Cheikh Abdoulaat ren ji xam nga ni bas liggéey bi yëpp kër soxna Fatou lañ ko defee soxna Fatou def ci yitteem def ci addiyaam def ci dooleem tëj place tëj lépp fa muy liggéeyee ñëw di liggéeyal maamam kon nag kontaan nañu bi ñu ñëwee nag sëñ Ablaat ñoom ñii ñu fekk si ak ñoom maam Thierno Diop ak ñoom sëñ Saliou Thiam ak Saliou meneen mi ci des ak bokk yi ah ak sëriñ Saliou Diagne waaw xam naa ko mu sëriñ Saliou ñii ñu fekk si. ay gor lañ yoo xam ne seni Touba lañ bokk ak ñoom xam nañu seen bëgg-bëgg mooy Serigne Saliou Salta mii diggam ak soxna Fatou Sidi ñëpp a xam ñoom maam Thierno Diop dal bi ñu ñu fekk ñëpp xam nañ ko soxna maam Fatou ñu ñu fekk ñoom ñëpp xam nañ leen xale yu baax yi ñoom ñëpp liggéeyal Serigne Touba rek ka leen ñor 28 kenn desut Touba kenn desut ndax benn bopp la seen yitte yëpp mooy liggéeyal Serigne Touba ñoom maam Fatou Diop gis naa leen xale yëpp gis naa leen liggéeyal Serigne Touba rek seen yitte boo gisee ñu yeex a ñëw fii fii mooy liggéey bi ndax fii ñoo bokk moom liggéey bi def nañu ñu naan def def nañ juróom-ñeent fukki mbana ak juróom-ñeent dañoo fanaanee togg biig ñëw jaar nañ ci daara yëpp leen war a def lépp def na ko xam naa kon damay jël kàddu gi jox sëñ Abdou Lahat mi dalal gaañi ak maam Thierno Diop bu ñu noppee rek tëj kàddu yi nag. sant bu baax di sant siñoor mii nga xam ne mooy jëriñ ji ak sëñ Thierno Diop ak mboolem mbokki taalibe yi ñu ko yëpp. soxna maam Faty ñu ngi lay sant bu baax te di ko seeral Serigne Saliou Mbacké ndax ñun amuñ yenn yitte yu dul Serigne Saliou Mbacké siñoor ñoo ngi lay ñaanal saw fan gudd yéen ji jikkam am liggéey sëriñ bi Serigne Touba fay la ko Serigne Saliou Thiam nga ne Serigne Saliou Jaxate nga ne dal bi dañoo engagé te duñ ci dellu ginnaaw ren jii ay nag lañ jënd defal ko kenn ku dul Serigne Saliou te buñ xaaroon ngeen ñëw defal ñu lépp waaye Serigne Saliou boo wootee ku wisiwul doo ay gor lañ soxna Mame Faty ñoo lay sant bu baax te man wóor na ma ne liggéey bi nga liggéey siñ Saliou dana ko nangu ndax xel comme ji yitteem la woon mu def ci lu ne tumuraanke fi di fi xaar yàlla suñu borom ba yàlla faye ko lii mu ko fayee kon ñoo ngi lay sant bu baax a baax a baax a baax a baax tey ñaan yàlla suñu borom defal tawfeex defal gudd fan ak wér-gu-yaram ak li ngay liggéeyal sëñ lépp mu bu bokk ci liggéey bi sëriñ bi nongu ndax liggéey bi moom lu mu rëy ak lu mu ndaw ndaw nong gi rek ci solo ndax buñ ne kuy sa waajur suñu si def lat boo melee nii du jaaxal kenn man du ma géwal waaye damay wax li nga xam xam man kër ma ñaaw si la laa dëkk xam xam si di bu baax ak waa kër ma ñaaw si la moom ku xam xam na ne dafa commencé fi mu war a commencé yam fi war a yem kenn yëwu ko ci yoon murid kon boo melee nii du ñu jaaxal kon daal ñun ñi nga xam ñoo ñun nga fekk si daal moom sant nañ bu baax suñu xol sedd na gëm naa ne suñu xol bu seddee xol bu suñu sedd sedd na ndax ñun ñi kenn ku nekk da ngaa bàyyi say place say yitte dagg ko ngir sëñ Tuubaa kon bu fi indee teraanga ju tol nii loolu munta munta naax saay faw sëñ Saliou nangu ko ndax ku xam taw tawfeexi sëñ Saliou doo ko natable xel kom ji ku ci engagé wul da ngay dellu ginnaaw del xool kii engagé ak ki dul engagé at mu nekk seen mbir na mi demee ndok loolu moom kii engagé ak engagé dee ko xool waxtu bu nekk ndox léegi-léegi léegi-léegi dama ne kii engagé xel kom ak ki dul engagé xool at mu junne seen mbir nan lay demee ndax sëñ Saliou Diagne mii ak sëñ Saliou Thiam mii ak sëñ Thierno Diop wat naa ko siñ Touba at mu nekk dana woon nit ñi fii te dañoo engagé nag di ci di ci dégg lu ci daj lu ne kon nag loolu koy defal soxna Mame Fatou Sy lañ koy defal ndax xel kom tey jii wóor na ma ne nii muy dox nii bu sëñ Saliou doon seen jamono dana ko neex ndax sëñ Saliou dafa bokk képp koo xam ne dafa dafa askanoo ci sëñ ndax lu lu sëñ Saliou am sëñ Blaat moo ko defal loolu ñun xam nañ bu baax a baax a baax Mame Fatou ñoo ngi lay sant bu baax te wóor na ma ne ñoo ngi koy seeral sëñ Saliou Mbacké di sant bu baax siñoor ñoo ngi lay sant bu baax sa coono bi yàlla bu mu neen wóor na ma ne yow mi da nga am da nga am lu baax da nga gudd fan ndax coono yii ngay daj mënoon naa ñàkk am nga pexe yu ne mën mën koo defee ne ñoo dëkk ak yow kon nag lii ngay def nii mel lu waaye di sax waaye di woo da ngaa xam li nga bëgg te sëñ Saliou ku ko lebal guddi mu fay la bëccëg ñun ñëpp dana am tawfeex di ñaan yàlla nag ku fi teew ren yàlla na fi teew déwén te suñu coono yi yàlla bu mu neen wax ngeen kon nag ñu déglu soxna si mu sànni ci ay kàddu ndax señor moom nee na du wax moom tey nee na bàyyee na lépp soxna si nee na xolam sedd na guyu kon ñu déglu yaaram si ne ñu ngi leen di nuyu ku sa tur sa sant ne di leen jaajëfal ndax fii ñu leen fekk ne liggéey bii ngeen def ñun ngeen koy defal ne wax ji du mën a bari ne wax ji fi mu commencé ak fi mu yem mooy ne siñoor loo mii nañ ko ñaanal yàlla ne gudd fan ak wér ndax daayira daayira daa am nu mu baaxoo daayira day nekk loo xam ni dañuy daje ku ne di joxe li nga am ñu war ko daje ba mat at un an ñu def li ñu war a def waaye daayira mooy bu la qiyaas loolu amu ci da dañu toog rek ba at mi ñëw señor jot lépp teg ko ci kawam te ku xool xam ne lii du lu ndaw kon nag daayira bi war nañ cee jëlaat yeneen matuwaay ak yeneen taxawaay bu kenn joxewuloon sax ñun dañu gëm mu def ko ndax sëriñ Touba jaral na lu ëpp loolu li sëriñ bi wax léegi dama koy dëggal ni ku ciy jëf ak ku ciy jëful dafa yomba xam ne quatre ans ñeenti at maa ngi ñëw at mu ci nekk saa yu may ñëw ne oto bi may jënd zéro kilomètre lay doon ne su may dellusiwaat dana fekk beneen oto génn ba ma jëndaat beneen oto ba ren bi may ñëw bi ma mujj a jënd amagul weer ak man loolu sëñ Tuubaa rek ko man ne sëñ Tuubaa ku ko def ci moom te dëggal ko da nga gis njariñ li ndegam mbaliti adduna yi ki lañ mën a jënd suñu ñaq ak suñu alal di ko ci def asama liggéeyal sëñ Tuuba lu ci nit def defaloo ko kenn sa bopp dong nga ko defal ndax loo gaal gu tëjee la. gaal gu tëjee la. loo fa def. loo fa def. bu ñu ko tijjee. bu ñu ko nga jotaat ko. nga fekk ko fa jotaat ko gaal nag bu ñu ko tijjee. gaal nag ko tijjee. defoo ko dara. defoo ca dara. doo mën na am dara. bu ko tijjee doo ca am dara. kon nag nañu dellusiwaat xel yi kon nag nañu dellusiwaat xel yi. te góorgóorlu te góorgóorlu. takk booloo takk booloo. te xam ne siñoor mi kat. te xam ne siñoor mi kat. gënuñoo bëgg baax xel mu rafet nit mën naa am xel mu rafet xëccuñu xëccuñu mais suñu xëccee tamit waaye suñu xëccee nag bu ñu dikkee bu ñu dikkee bu ñu nekk yaafuus bu ñu nekk yaafuus man daal lii wax man daal lii laa wax. mënut tey. nee wax ji mënut a bëri. ndax gis naa ni daal mi ndax gis naa ni seigneur loo mi ngi ci jànkonte lu bëri. waaw kon nag ñu ngi sant ñi fi teew. kon nag ñu ngi sant ñi fi teew ñëpp. di leen gërëm di leen gërëm. ndax ñoom ñu fekk si. ndax ñu ñu fekk si. seen jëf ci bis bi seen jëf ci bis bi. seigneur leeral na ma lépp. nee na mi ngi leen sant di leen gërëm at mu jot nag yàlla na mbir mi gën a yokk ci barke Seexul Xaddim sant nañu ñëpp jërë ngeen jëf. moom fàttali jugal te sant ko nag. mat na ko de. sëñ Sidi may na la sax. may na la sax. ndax la gaaña bëggoon ne sëñ Sidi yow la ko jox. ma ni kaasu ataaya ba sax. keroog ba nga dawee ni ko nan. ca nga rawee ku ne tey sa daw ya mooy sunu raw. man fàttali ku ñëw jariñu. ah ah. si ñoonu ko ñëwul fay jëriñoo ndax njëriñ fi la ne gaa yi ñëw leen ñu jëriñoo yaa ko yeewale wu lii nga am ku ko am dëkke wax na gaa ñi nan wax ba xutiku waaye laata wax na nga jëf te boo jëfee na nga wax li la yàlla dogal xamal ni cat la di cat waaye wax ji doon te cat la ci ñun kon de cat la di gën ni wax di yokk bu dee cat bilaay nan ñu cat nan na jëf jërëjëf ñu tàllal soxna si ñaan jërë ngeen jëf jokk jërë ngeen jëf rayo leen